mbokk internet yi maa ngi leen di nuyu te di rafetlu bu baax a baax ni ngeen di àndee saa su ne ak programme 5 TV ma ñëwaat ak yéen ci décortique bi ñu leen di defal série bi di Arrêt Mère Thiaba tey mu yemoo ko épisode 26 bi ñu door ko ak séquence bu njëkk bi euh, ñu gis ni Toch moom nag dem na rekk di harceler vieux bi nga xam ni moom moo fay ñëw euh, di seet si yaayam euh, mu mel ni nag li ñu naan parfois doom yi bu seen pa waajur yu góor yi dëddoo àdduna dañuy fiire seen waajur yu jigéen yi rawatina nag bu dee doom bu góor Euh, indi mooy euh, papa dafa nekk loo xam ni remplacer ko rek du yomb ki nga xam ni moom moo la jur teete la yar la ba nga màgg kookee doo bëgg rek keneen ñëw euh, di jël palaasam wala di ko remplacer ba tax toos mayul benn yoon kanam vie bi nga xam ni moom moo bëgg takk seen yaay loolu nag tax na mayu ko jàmm te fu mu ko fu mu dajee ak moom rek rusloo ko xamal ko boppam tegaat ko rek ci palaasam ngir rek xamal ko ni merca ba du pour moom ñu jàll ci beneen dellu si waan ci sirif ak kat yi jàmm nag moom moo gën jama ba tax rek fépp fu mu am day neex ndax gis nañu ni sérif ak kat yi ñoom ñaar euh, bëggante nañ euh, trop donte nag euh, li olof njaay di wax bañ ak ñoo dëkk mënta ñàkk ñu laale diggante ñaari way dencante itam noonu la parce que néegu sëy nekk na loo xam ni dafa xat trop kon yaakaar naa jote fa mënta ñàkk waaye nag comme ni ñoom sérif ak ki nga xam ni moo di kat yi ni ñu def rek moom mooy li nga xam ni mooy gën te mooy rek problème bu mënti am ngeen daal di koy waxtaanee daal di juboo ñu jàll ci ki nga xam ni moo di mbeng euh, moom nag tey ci gargot ba dafa dem rek di régler kontam ak ki nga xam ni moo di Mame Balla mu mel ni nag li mu fekk Mame Balla këram muy doxaan euh, doomam loolee mënu koo digérer te it nag métti na ko torop euh, ndax moom mbeng nee na doomam boobu xale la kon Mame Balla yëfu pédophilie rek la nekk di def mu mel ni nag gargot bi tey règlement de compte rek moom moo fa am ndax ki nga xam moo di Toch dafa révéler secret Mame ndax xamal na ni rek kon euh, ki nga xam ni moo di Mame Balla yemul ci Bintu waaye mu ngi ci yeneen xale yu jigéen ñi loolu nag métti ki nga xam ni mooy euh, copain euh, ki nga xam ni moo di copain Bintu bi di muy mauritanien bi moom it loolu métti na ko ndax moom bëgg na Bintu bëgg boo xam ni jàpp na ni rek keneen waru koo bëgg ku dul moom mu mel ni kon tey fi nga xam ni moo di gargotu mère caba bi beneen xar kanam la ñu fa gis bu wuteeg ba ñu fa daan gis te mooy rek ay règlement de compte ñu jeexal ak séquence bu mujj bi jéem rek rattraper li mu perdre ak euh, jabaram ndax Mame Balla depuis le début da maltraité jabaram du ko toppatoo du ko defal dara waaye nag danaan topp ci xale yu jigéen ñi rek lu ñu bëgg mu defal leen ko di xañ jabaram di leen yóbbul tey nag mu mel nii bi nga xamee ni Mbeng xam na dëgg bi yépp ci moom tax na nag mu bëgg rattrapé wu daal di nak dellu siwaat nekk jëkkër ji nga xam ni mooy jëkkër ji gën pour jabaram waaye nag malheureusement pour moom da koo yéex a def ndax euh, euh, ñëw na daal di wax dëgg bi ki nga xam kër gi ndax euh, jabaram euh, comprendre na bu baax a baax kon ni nga xam ni noon la euh, ki Mame Balla doon comporté woo doxaan bi muy doxaan xale yu jigéen ñi moom moo ko waraloon kon mbokk internet yi ñu topp leen ci leen épisode yi waaye laata boobu wéyal leen di abonné ci 5 TV bu leen fàtte nag bés ci cloche de notification bi ndax ngeen di jot suñu vidéo yi ci saa si jërë ngeen jëf yaa très bientôt incha allah